raxas la kii da ngeen siy jàpp rek. Euh, tey cinq tonnes mais lan ngay xaar ani combat yi wala gars yi promoteur yi seet si wuñ la parce que gars yi dañ la gis gëj a gis nga bëri ñaata combat nga am. man am naa 7 combats 5 victoires 2 défaites man instant ñu ngi may seet si vraiment Aziz Ndiaye woo na ma sax ci Balla Gaye tafaatin bi pour mu bëri si mais xam rek. vraiment man moom pour l'instant ni maa maa xaw isaan baal ko ndax lamb dafa yàqu nekk milieu boo xam ne comprendre bëri na ay déviant bëri na hypocrite xam nga bari na lu kenn mënul na trop bari na trop ñuy signaler gauche à droite bari na trop ay pièces bari na ci xam nga làmb yàqu boo ci bëree parce que daanaka doo ci am xaalis plaisir bi rek nga ci am waaw day yàq sa temps xam nga daal métti na yàq làmb bu baax a baax a baax. tey nga nekk diwaanu Géejawaay diwaanu Géejawaay mën nañu jàpp ne promoteur yu mag yëpp promoteur bi téye làmb actuellement fi la dëkk muy Aziz Ndiaye ak Baye Ndiaye te est ñoom ñu lay seet pour parce dugal ci làmb jooju pour nga bëri ci non Orange dugg man Tapha Gueye 2 man lañ ko njëkk a proposé booy waaw avant muy booy yëpp nii ay Laurent ñooñu man lañ ko njëkk a proposé mais man maa pare wutoon pour bëre moom a a ko doole pour ëpp leen ni muy def booy fan yi non wala man mënu def loolu dama ko def sequma ko moom sama man mënu def loolu ma ko doon def barke alxuraan ah. wala nga si mën na jàpp ni fii fan yi néew mën nga am combat waaw ça dépasse man ah, si lay dépendre xam nga moo de bala wax lamb daal pour l'instant dafa yàqu trop trop trop trop trop trop comprendre moo tax pour mu bëri ci nag du yomb daal vraiment du yomb. lan nga dund dund ci làmb ba tax na nga naan làmb dafa yàq chaque jour. bari na CNC bi tegun ko ci yoon ku ci mel ni Biraseen ak Ndiame amuñu respect ci nit xam nga dañuy yàq ñoom ñoo gën a yàq làmb après wul làmb nga gis nit feebar sax doo gis kenn ku dugal loxoom xam nga ñoom noonu affaire yooyu man na yooyu ñoo métti tamit bëgguma man doomu doomu laa quoi man damay bëgg lépp loo xam nekk naa ci ki nga xam ne moo jiite affaire mu bëgg mu reconnaissant jàppale ñu taxawuñu quoi. yow ban écurie nga nekk fii Guédiawaye man maa ngi Papa Kane. ñu gis polémique bi bari na fan yii lool ci euh, fan yee passé jël nañ la sotti nga ni saa nga ni euh, kii Tapha mbër day jël defet mais sa diggante ak Tapha Mbeur lan la. Tapha mbër man bu passé. waaw non kooku Mor ko man du mbër. du mbër. mais lu tax keroog ni dafay daan taw ak ba koy wax man da nga da nga taxawoon ci lu leer. non du mbër da dul mbër xam nga bu nekkoon mbër moom Tapha Mbeur moo nekkul mbër quoi. la moo tax du mbër du mbër dafa yorul jërul caaju mbër entraîné wul nga ñëw mel ni ko ndoxum si di jeex tàkk du mbër ah pan waaye bay waxal mbër kooku mbër kooku la ah, lan moo ko def wax tak wax ba wax du mbër barke du mbër du mbër sax yaag moom seen combat warul mën a tax non boo ko xanaa ma ray ko barke Serigne Fallou Mbacke kooku mënoo mbër ma koy dóor ba mu tëddal boppam barke alxuraan du ma ko jàpp duma ba mu tëddal boppam nga amal est mais tey ñu ngi déggaat euh, ci ci jour boobu suma ma ci la kii doon bëree Sa Thiès ak ki nga xamante ni mooy euh, Eumeu Sène Sa Thiès jëlee si ndam tey Sa Thiès yaa ngi ko doon wax nga ni bu daanoon làmbam lu mu mën a yàqu bari na tey làmb Sa Thiès instant avenir Sa ci làmb waa avenir bi mooy toog xoolaa rek defaraat seen entourage surtout surtout surtout seen affaire chimique yi quoi dafa désordre trop dugal na ci ay maara ma maara maara tiktok yi ñu ci dugal war nañu see dindi quoi maara tiktok yi xamuñu dara di fen rek dara xamuñ ko fen fen rek loolu rek mën na leen a daan ñi maara tiktok yi dañoo xam dara ñoo xam tus xamuñ ñoom ko koo ci jàpp ko ñoom maara yi ko indi woon noonu wallaay lancé mais 5 tonnes kon Sa Thiès en entourage bi mu amoon ba muy jàpp ba tey mën nañ jàpp ni kon ba papam génnee àdduna ba léegi amatul entourage bu baax non mën na entourage mën na ko am mais dama ne ci mikaayam dafa désordre ñi bokk ku ne dëkk borom sobe yi fii maara yu xamul dara yi fii loolu mooy mënoo ko ànd ak am galaaj hmm. wala asim pour ñu miin day jàpp ma xam ne saage sa femme yu bëre lañ ko jaay hmm? ama seen xam barke alxuraan li ma ne fu leer laa rek avant muy bëre xam na ne euh, saage daa am a faar tamit lu ma la wax rek dafa am ay argument faar gi day métti ama seen xam ne loolu avant muy bëre mais kan moo war a jaay Sa Thiès. mooy doo ma bàyyi yow <laughs> yow yaa xamul géej yaa xamul dëgg bi rek yow après ngay comprendre géejawaay lañ ne de. mais chaque jour dañuy dégg nga wax géejawaay géejawaay géejawaay tey fan yee passé wax nga fi ni euh, Balla Gaye bu ko tafaatin dóoree waa géejawaay yëpp jël ko. non dama ne ku dóor waa géejawaay duñu reer. waaw duñu reer waaw loolu la waaw. waaw léegi waa géejawaay duñu lu tax ngay wax loolu tax ngay doomu géejawaay. waaw doomu géejawaay laa mais dafa dama xam force frappe bi am rek. Hmm. waaw force frappe ak Balla Gaye ni mu toll actuellement. non Balla Gaye dafa wàññi poids daal li koy mën a wax mooy combat capital si moom xam na ko liggéey bu baax a baax yokk doole ji xam ne coow li bari xam ne mooy président mooy mooy mooy président am toll gars yi nañ ko xale wala na góorgóorlu ci loolu bu baax a baax daal xam nga xaw a xaw a defaraat affaire yi fi doole moom bu ko yàlla dogalee moom mu ñàkk moom yàlla bu mu ñàkk waaye bu ñàkkee dina métti si ñoom trop waaw ah, dina métti si ñun ndax yow <laughs> actuellement polémique bari na trop ci làmb ci tey roi des arènes empereur ku nekk wax jooju dem ak ñëw Aziz Ndiaye génn wax wax jooju te yow ban message ngay wax ci lancé ci wax jooju Aziz Ndiaye yëkkati wax ko. waaw message mi ci wax mooy Guédiawaye lañ nekk benn roi des arènes moo fi am Modou Lo mooy roi des arènes loolu ku ko nangu rek mooy loolu mooy roi des arènes benn roi des arènes dafa suñu borom teg benn président benn roi des arènes benn xalifa général ñaari xalifa général wala ay xalifa général xalifa général yi mu bari nañ waaw xama bu kunta maam limaamu xama Seexu Tijaan xama ñenn ñeneen ba ci yoonu murid ma bokk Cheikh Mountakha Mbacké maa ngi koy ñaanal bu baax a baax suñu Mountakha Mbacké surna surna surna xasida yi ñu war def suba quoi yàlla suñu borom da xama lépp lu ñu fa ñaan rek suñu borom jàppandal ko quoi mais mais mais est-ce que Modou Lo mën na nekk ci kanamu Balla Gaye roi des arènes parce que Modou Lo Balla Gaye daf ko daan deux fois Modou Lo ñu bëri nee nañ ba muy jël roi bi da koy jël en tant que lii quoi euh, Eumeu Sène moo ko xaalil yoon moo ko may roi des arènes non non non Modou Lo mooy roi des arènes moo duma Eumeu Sène mu daanu dikk daan ko dafa daan Eumeu Sène Eumeu Sène dafa daan Balla mu Modou Lô ñoo daan Eumeu Sène Eumeu Modou Lô mooy roi des arènes su ku ko daan yaay nekk roi des arènes am na droit combat Tapha Tine Balla Gaye mu teg logo Zador ku daan moom Zador waaw ah, loolu am na ci droit <laughs> mais moom mais mais jàppoon tamit initiative boobu mu bëgg def initiative bu bu bu muñ ci initiative boo xamante ni mën na yóbbu làmb fu sori parce que chaque weer ñu lay fay chaque dimanche nga ñëw baax utal ay sponsor so waay fii daal lu fi waaye man ku ne man ku ne man na ko toog noppi bu ñu kenn sonal man mi sax mën naa créer sa barki alxuraan su créé woon roi des arènes boppam barki Mouhamadou Rasulullah ma def waa géej waay gépp Issa Ndiaye ma fi teg samay sées woo def sama bopp roi chaque weer ma fay sama bopp barki alxuraanu karim billaahi woo père Moussa Fall mu jàppale ma ci maa ngi waay nekk nit ku baax koo xam day def 100 pour cent di jàppale waa géej waay te waaw Père Moussa Fall mooy borom waaw borom ceeb bi borom Sador doo dégg saa ki naan Père Moussa Fall xam nga mooy borom non moomul Sador sax ci ay ceeb lay jaay ay diwlin affaire yu bari Père Moussa nekk nit ku baax di sant madame Fall soxnaam waaw vraiment woneen ma 5 tonnes saa amee temps ñëwul ak ceeb ak affaire yooyu Père Moussa Fall nekk nit ku baax daal te vraiment maa ngi ko ñaanal bu baax tey 5 tonnes euh, euh, Aziz Ndiaye moom ba léegi duñ ko wàcc tey moom ak Siteu gis nañ Siteu génn génn ay kàddu yoo xamante ni wax ko ci ak jëmale ko ci Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye génn wax ay kàddu jëmale ko ci Siteu nag naka nga ko mën a analyser. waa ni ma ko mën a analyser mooy la ma waxoon rek Aziz Ndiaye moo toll foo si àdduna moom décor la warul wax warul wax roi des arènes bi ak affaire yi mu warul wax ko nit am na fooy toll soo waxee dañ naan da ngaa naagu da a yaakaar yàpp ñëpp xaalis waroo wax. te boo waxee li problème da nga am ñoo xam dañ lay xamal wala dañ lay dencal loo xam ne yow doo comprendre quoi waaw après say mbir day luus bul wax yow xoolal xam na war a yow da nga taxaw garde neutre am nga droit jàpp ne Balla Gaye 2 ñëpp boot leen say doom lañ say xarit lañ doxal ci loolu quoi man na Siteu li xam ne lu si moom lay développé quoi comprendre na te Siteu tamit jàmbaar la Baye Fall waroo wax li ngay jëf moo war a ëpp li ngay wax day am na xam am wax yoo xam day yàq sa liggéey quoi yàlla xam na loolu mais kon moom moom mais moom jàpp parce que moom dafa wax Siteu dafa génn wax après Aziz Ndiaye dafa wax gars yi dañ jàpp ni que moom dafa bëgg a ki nga xamante ni mooy Balla ga yoon pour mu jëli roi des arènes Siteu génn yëkkati ay kàddu wax Siteu tamit